oui Pape. voilà tout est rentré dans l'ordre ah. c'est bien donc. on n'a pas beaucoup de temps Fatou Ndiaye mu ngi préparé pour journal bu 10 bi ma mhm. bëmax la nga xóotal yéen a kaay des jërë ngeen jëf. ki ngeen di gis mooy Karim Wade photom bi ci laas la nekk yéenekaay bi xëy dikk ak ñun eh, ci moom doomu Abdoulaye Wade yeeg grève de faim bi mu nekkoon journal bi nañu gannaaw ñeenti fan yoo xamante ne ji Karim Wade mi ngi ci grève de faim ndax nee na daal mooy Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké xalifa général Mouridi moo ko jox ndigal moom Karim Wade ngir mu dellu gannaaw ci grève de faim bi observateur xëy ci dellu siwaat ak ki nga xamante ne ji mooy Serigne Moustapha Mbacké taaw ci Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké mi nga xam ne moom la xalif bi yónni rëbës ngir mu dem gisee ji Karim Wade yëf yi ak na mu demee la mu ko jottali ci kàddu xalifa bi ak miskit meek ndox meek euh, ngato yi mu ko jox ngir Karim dakkal grève de faim bi ak li ko Karim Wade tontu lépp mu ngi ci biir observateur observateur dem na ca ba jeex enquête nañu jamono ji kon euh, li ñu doon yaakaar mu di fitna koy bu séntu ne c'est la détente détente ne Karim Wade arrêté ne grève de la faim bi ay avocat tamit aw nañu yoonu dellu ba ngir dem a moo di bàyyi Karim Wade Abdoulaye Wade ak le témoin mi ñu xëy xamal ne daal def na volte face maanaam maa waxoon waxet jëmu fi waxoon daanaka defaan na ko ndax ci mbirum Charlie Hebdo euh, njëlbeen ga dafa àndoon ak euh, ñi nga xamante ne ji ñoo contre ñi songi woon Charlie Hebdo ginnaaw bi mu daal di far ànd ak ñi nga xamante ne ji nag ñoom ñoo dem songoon Charlie Hebdo ci gàttal ànd na ak Macky Sall ba mu neex ko mu ne àndul ak Macky Sall loolee yéenekaay bi wax ko moom président Macky Sall rakkam eh, di Alioune Sall bari na ay yéenekaay yu ñu xëy xamal ne la mu doon yóotu jot na ko mu di association des maires du Sénégal grand place ci la bokk lii la gis association des maires du Sénégal Alioune Sall gagné na ko doon xëccool mu di Talla Sylla mu di eh, Samba Bathily ne ji moo di eh, bi ci week-end bii la woon Alioune Sall kon gagné woo ci njiital euh, association des maires du Sénégal mu di Alioune Sall nee na dana def kéemtalaay kàttanam ba bépp sensibilité politique ba sensibilité politique bu nekk ci réew mi mën a gis sa bopp ci association euh, des maires du euh, Sénégal loolu yéenekaay bii di Le Soleil moo ñu ko wax mu di kàddu yu mu nangoo ci ki nga xamante ne ji moo di Alioune Sall Le moom nii la tuddee léegi association des maires du Sénégal muy association entre les maires Sall lii mooy titre yéenekaay bi nga xam ne moo di Le Quotidien réew mi Quotidien mel na ko naan ko waxati ko li ñu mën a dégg dëgg te mu am ba des moo di Macky Sall ak waa këram séddoo nañ réewum Sénégal loolee réew mi quotidien moo ko wax ngi ni euh, Macky Sall ni mooy président bu Sénégal kii mooy Alioune Sall mooy président association des maires du Sénégal réew mi quotidien gis ne daal wàccal leen kon séddee nañu li nga xamante ne ji moo di réewum Sénégal taala si la bokk ci ñi doon xëccoo kuréel googu te jotu ca la jël ak vingt cinq voix yëkkati yi la kàddu ci populaire na lii dafa ñaaw sax Alioune Sall ak euh, mag ja Macky ni ñu def dafay tilimal deru euh, république Sénégal gi yëpp jamono ji ji seen i xel ma nga ci Coupe d'Afrique bi nga xamante ne ji euh, ma ngay am ci Guinée équatoriale waa sport dañu gaynde yi tey ji kon la ñuy football les lions d'attaque ci gàttal ñoom gaynde yooyee jekk nañu beneen yéenekaay bu ci dellu soit moo di stade nañu li des rek mooy dugg ci kan bi ci anam yu rafet Sud Quotidien moom it xëy leen feeloo nii mu di lan gagner pour le moral Pape. merci beaucoup. jaajëf léegi mën nga